Mohamed Ndiaye ngeen jëf bari na ci journal yi tey yoo xam ne ku leen jege boo deful ndànk di tàggoo ak sa sago ndax dorog bu bari dorog bu bari bi marinub Sénégal jàpp ñu bari ci nekkaay ñu xëyandool moom la xëy di waxtaane ci seen xëtu njëkk bokk ci ñoom l'observateur mi ñu wax ne ginnaaw 800 kiloy cocaïne yi ñu fekkoon ci fukki wat ak juróom ca poorum Dakaaru 2019 ginnaaw 238 kiloy cocaïne yi ñu jàppoon ca poorum Dakaaru ba tey démb ci talaata bato patrouilleur bii ñu naan fulaadu dogaale ci géej gi bato bu yeboon ñetti tone cocaïne ca Sao am na juróom-ñeenti nit yu newoon ca bato ba di membre équipage ba l'observateur ne nañu jàpp nañu leen sursoi nañu bato ba ville d'Abidjan la tudd ci benn réew bu ñu dendal fa la bëggoon a accosté ña newoon ci équipage ba ñoo ngi ca yox benn doomi Sénégal bu ca nekk libération moom it xëy ñu indil ay révélation ci dorog bu bari boobee marine bu Sénégal jàpp nee nañu jege na ñetti tonnes ñoo ngi ko fekk ñu soloon ko ci saakoy fanweeri kilo ca Sao Tomé fa la bato bi jóge woon doon dem ca Gambie ci waaxi Kafountine ca la ko marine bi jàppe ñeenti nit ne nañu am na ca koo xam ne Irlande du Nord la dëkk am ca kook Sénégal gii la dëkk am na ci juróomi nit yu dëkk Nigéria ñaar ñu dëkk Guinée Bissau ak kenn ku dëkk Cap Vert ñoom juróom-ñeenti nit yépp ña nga ca loxoy waa OCRTIS quantité drogue ba Vox Populi ne nañu mi ngi toll exactement ci ñetti tonnes yu manqué fukki kilo ak juróom 2975 la bu ñu doon xayma njëgg Vox nee nañu dina toll ci milliards millions ak lu teg lii quotidien nee nañu mooy mujj ci journal bi nañu démb lañ ci doon daje ngir doon waxtaan ak di def bilan ci taxawaayu ONAS ci nawet bi ñu génn njiital ONAS di Mamadou Mamour Diallo di ñu wax ci xët mu njëkk journal bi ne ren ji góorgóorlu nañu ba dégguñu ci réew mi waxi plan Orsec dégguñu fit école bi tijji xale yi war a jàngi ñu ne mënuñoo jàngi ndax école yi inondé dégguñu fi autoroute bu dagg ndax inondation hôpital Philippe Maguilène Senghor bi nga xam ne sax bu nawet masaana jot ko ren Soleil national di ko dëggal ci xëtam mu njëkk soo nañu waa ONAS ak taxawaay ci nawet bi gongo rek la ci i gaayam di dégg ñu déggee ci xët mu njëkk l'Observateur ay pexe yu ñu teg ngir xëttali compagnie aérienne bii di Air Sénégal président ci démb ab réunion ngir ñu seet nu ñu mën a def ba moytul Air Sénégal ab crash financier journal bi jàppee ko plan de sauvetage bu mujj ci Air Sénégal yaakaar ju mujj ci Ousmane Sonko ngir mu duggaat ci liste électorale yi Sud Quotidien nee nañu mooy li awkaay mi def démb dem nañu ci Cour suprême yóbbul ko ab rabat d'arrêt journal Les Échos dañuy wax ci juróomi ponk yi nga xam ne ci la awkaay Ousmane Sonko yi sukkandiku ba tax ñu dem ca cour suprême bés bi le jour dañu fàttali yu Karim Wade yu Khalifa Sall yi fu ñu mujj mi ngi ñuy waxit yaakaar ju Ousmane Sonko ak i gaayam wékk ci rabat daray bi ñu yóbbul cour suprême rabat capital la ko journal bi tudde l'observateur bind ne Sonko ci sànni tàccoom ca la toll ak ëllëgam ci bokk ci présidentielle 2024 yi ma nga ca loxoy chambre réunie bu cour suprême dialogue de la dernière chance Maodo Malick nee na dafa jaadu ci réew mi ak fi mu toll jamono ji mi ngi ak dal ci géopolitique bi il faut que toogaat waxtaanaat dafay am Maodo Malick Mbaye ne li ñu gis dalul am xel ne président Macky Sall mi ngi jëm ci jeexal ab mandaam opposant bi ëpp doole nekk ca kaso ba opposition bi ci réew mi taxaw ne du ñu nangu ministre intérieur bi fi nekk di maître Sidiki Kaba di organiser élection présidentielle yi ndax ci pouvoir bi ci la far société civile bi ci réew mi mësuñu jóg ci di wax ne yoon wi suñu réew jël bu ko wàccul du ko jëme fu baax Maodo Malick Mbaye ne yii yépp bu ñu ci toogul waxtaane ci def ci dialogue ku nekk génne li nekk ci dëndam ba ñu mën a gindi ko ci poñ bari bu ñu ko deful du yomb ci réew mi journal l'info li mu wax démb ci insécurité gi am ci université yi ci réew mi moom la yéenekaay bi xëy di jottali sunu làmbu xëy ñu jottali dogal bi CNG lutte jël ci recours ba fa ñoom Siteu yóbbu woon ngir doon diingat victoire bi Lac de Guiers am ci seen kaw yéenekaay bi nee nañu CNG bi dafa débouté waa Lansar dëggal victoire u Lac de Guiers 2 ba moom borom victoire bi di Lac de Guiers xëy na séq waxtaan ak journalisé ko ca waxtaan ma nga fay wax ne VIP yi ci làmb ji dañuy bañ a bëre ak moom ndax li ñuy ragal mooy moom Lac de Guiers mu doon roi des arènes